comme ni mu ñu def ci déclaration politique générale bi ci li ko ah na defaru rek te bu mu ci def xelam 100 pour cent à tout moment Diomaye mën na xëy ne ko jëlaa décret ne ko maa waxoon waxee. Hmm. na mbaay alors. Euh, si loolu exactement itam appel à candidature yi fan lañ si ah! toll parce que. Euh, loolu kay tàbbi na euh, géej nomination yaa ngi dem et tant d'autres et tant d'autres. alhamdulilah comme fàttali ko ko rek <laughs> léegi yow man yow laay delloowaat laaj bi ndax man wax naa ci waroon wax. léegi appel à candidature yow noo ko gisee heure bi.

mais fu ñu bokk lu dul ay magistrat la ñu magistrat yi léegi dañoo am ay connotation politique ah ngañ dem ma moo ne ku bokk le cœur di cœur de l' état xol bi waa Pastef fa fay ne mais xolu état da nga cee mën a génne magistrat yi mais loolu c' est évident waa fa parce que tamit voilà ñoom ñooy man kay damaa laaj rek ñoom ñooy doxal projet bi wallaay damaa laaj si magistrat yi déet xolu état mënoo cee génne magistrat yi waxal leneen xol bi <laughs> magistrat yi l'armée bi mënoo leen génne ci xolu état bi ak police ndax sécurité état bi ñoom ñoo koy saytu luwaay état bi ñoo leen koy définir wax leen lan la ak lan la Sonko bu ma ko tooñoon mënu lu ma dara fuñ may yóbbu du ca magistrat ya kon nag ñooy ñooy ñooy xolu état wax ji ngañ dem ba wax dañ ko peesewul mais wax ju garaaw a garaaw a wax gënu koo rëy. ministre de la santé tamit li mu wax wax ci wax gënu koo rëy. léegi nag xaaral nu ma neex laa koy dégg. man kay fo yow yow xamal li ngay wax rek fa ma koy yóbbu bu ko lijjanti. moo tax ñu ne la booy wax seetal li ngay wax bu baax. ni ma ni Abdou Nguer di xalaatee yow ni ngay xalaatee du benn man ni ma xalaatee mooy yow yaa ne te nag sa waay caaxaan fi nekk waaye li ma la wax yaa gën a xam boo ne këru état bi hmm. waa Pastef ñoo fay ne. kee génn ne bu ma jotee CV bala maa validé damay xool ndax Pastef nga bokkam déet ah ñu gis Bassirou Diomaye fay jël décret fal nit ñu xëy ñu ne nit que jege ñaale Amadou Bala ñu folliwaat ko muy lu garaaw ba tey Bassirou Diomaye Faye bu jëlaatee décret nommé ay magistrat ne pour ñu wëral ko alalu réew mi ca yooya waxtu Diomaye fay làq ñeenti nit ca pale ba yoo xam ne ñoom ñoo waxoon ne dañoo jël alalu réew mi mm. mooy Lassana Gagny Sakho Mary Teuw Niane euh, Mimi Touré général biram Diop ñoom ñoo leen tuumaaloon pare fat leen xel dafa war a tey ñu laaj waa pôle bi yéen fan ngeen bokk parce que nag benn pôle bi moom teg naa leen bët te du ma ko teggi seen première convocation yi laay xaar

dana leen waat naa ko ci bind asamaan ak suuf bu doon faatiment mi di sama doom moo ko def damay dagg loxo bi te Ousmane nag fii la taxaw garanté yaatam ne yonante bi la ñuy roy royuñu ko sax waaye loolu la wax ci gémmiñam dinaa ko nangul léegi roy yonante bi muy commencé ci nit nga tuumaal ko da koy setal ba mu set bu setee ne deful dara yow mi ko tuumaaloon dafa bokk ci nga taxaw jéggalu ko publiquement na leer mari taw ñaan avant ñu ko doon nommé moom dafa waroon ne lii ma concerné setal leen ma ba pare ma doog a ñëw. mais est-ce que gisoon na ko. ay waay Samba. UG kay ku mu defal rapport laaj na la sa xalaat yónnee na la wax nga tontu nga mu boole li nga wax ak li mu gis yóbbu. UG du bind sa ginnaaw de xaaral ma ñëw mais laaj la sa xalaat ne woon ni yaa def Abdou quand même. d' accord mooy ñee rek ñii ñu mooy daxawal mooy ñii ñu tee ci dëkk bi ne mun leen tukki mun leen doxi seen occupation pourtant kenn waxagul ñoo def kon ñee tamit kenn waru leen woon a favoriser di leen fal ñee fu leen neex dem. te te këyit wi tuumaal ñii moo tuumaal ñee ñee fu leen neex dem ñii fuñ neex duñ dem parce que lan président bi moo leen di liggéeyloo waaye yow yaa xayti mu laa man de kër gii borom kër gi bu nee woon tuumaal benn journaliste fa ne sàcc la ma xëy mu dugal ko fii ñu war ñoo boole ci kër gi dinaa ne ko directeur taxawal nag ñu waxtaan parce que man damaa yor matériel damaa yori portable <laughs> damaa yor saak te comme comme ngi nee nga kii day jëlee fi jàmbur damaa bëgg nga leeral parce que man nag taluma di laajte sama yëf. wax ma ki sacc la wala yow ya dul wax deug loolu la koy laaj ben mu ne ma ah ki kat sacc la bu ko defé man suma togué sama yef tek sama wet bu ma sori bu ne ma ah man ma do don doon wax deug boba dina meuna tek sama yef ko ne man na ko koy deng sax man na def émission ne ko jambar téyel ma mm. mais nak jomay li mu def dafa graw parce que mom mari taw ñaan ku lu ne deg nañ ko vidéo ba nga fi bu la nexé man na ko jog rési tek ko fi lu ne waxante nañ ko ñom ñaar ba mari naa leen da ngeen di xëy ndékki ba suur ah sol seen yére rek taxaw di tuumaal nit ñi jomaay jóge fële sonko jaar fële mais général Birame jóob nag Guy Marius ak sonko loolu lañ ko waxal coup d'état foncier waaye yaa xayti mu laa koo xam ne dafa jiite armée général la mm. nga ne da doon coup d'état nga far nag ministre ministère bi jiite armée bi yëpp nga dénk ko ko léegi sénégalais yi ne teg mel ne dara xewul léegi pôle bi ñoom dañ ko fay teg pour régler problème yi wër alalu réew mi wala dañ ko fay teg pour wër waa APR léegi nag moo tax ma bëgg magistrat yooyu man ne xawma ci kenn ku ma ci xam nag dinaa la laaj. mais yaa ngi sama waa ji foo bokk. mais yaa ngi discerner posture opposition ak posture pouvoir bokkuñu. Abdou ni opposé ak ni muy ñëwee si pouvoir bokkuñu. Euh, les euh, les déclarations dañuy évoluer euh, déclaration yi day am benn avancement bi. su ma la déggee yow soo nekk opposition man ngaa fen non pas fenn mais. quand def soo nekk opposition mën nga dénoncer mais soo ñëwee pouvoir bi loola. ba tey bu la déggaatee le yëpp ngi sa loxo. buma la déggaatee xool ku def deful. la déggaatee soo au pouvoir tamit mën nga sos parce que dénoncer nga wax. moy hmm. sos rek danaka lu worul la dénoncer moy bolé clamer. xam nga Ousmane Sonko bi mu au pouvoir sos xam nga Ousmane Sonko bi mu au pouvoir. ay xam nga Ousmane Sonko bi mu au pouvoir lan ngeen ko waroon njëkk laaj. dalal ak jamm monsieur Ousmane mu ne la waaw nga ne ko waaye nag jot na ndax place de l'obélisque nga taxawoon ne xam nga bu ñu def 46 milliards réew mi làq ko fa bañ la laajee ñun journaliste yi da nga ne woon boo ko joxee documents yi dañ lay toppee reçu de document léegi nag kenn dootu la ko toppee Ousmane wax ñu compte bi fan la gaaw balaa waaja di ko su nu demee fekkuñu ko fa tamit ñu wëri ka ko fa làqoon dafa jot parce que boobu mooy bi gën a gaaw moom boobu moom moom mooy daar daar mun ta xaar parce que compte bi Ousmane xam na ko xam na fiir ma fu ñu ko defee kon boobu daar daar la leer na moom boobu leer na am de hmm. yi ci des ICE moo nekk dafi enquête mais bii moom Ousmane Sonko nee na ak waa Pastef ñoo def seen i enquête seen i investigation ba xam ne Mamour Diallo luubal na 94 milliards 46 milliards yi nag nee na hmm. xam na banque bi ko fay xam na numéro compte bi xam na ko ne ne ko procureur woo léegi nag jëratu ko mbir mi leer na na bind mail rek procureur wax ko adresse wax ko banque bi wax ko numéro compte bi. mais loolu lépp réglé ko gaaw non non non loolu jarul dem jaru ko xam nga lu tax. Hmm. loolu jaru ko yow yow boo toppoon boo toppoon sàcc. mais xam na Ousmane Sonko. waaw léegi yow xaaral ma wax la bu amul dàggasante. non si parce que loolu su la na ma. la. dama lay daggasanteeg ay ancien ministre yi li ngay wax waxuma ko de ko gën ñoom ñoo jomba daggasanteeg moom dama ne soo doon dàqub sàcc hmm. nga ñëw ba fekk portable la la jël nga fekk mu teg ko nii nëbb ko moom làqatu gisoo ko nooy def doo jël sa portable rek dem gënul yomb léegi Ousmane kay dàq na sàcc ba gis banque bi mu dugal xaalis bi yaa xayti mu laa na yebal xolal moom moo mooy dirigé état bi heure bi na yebal euh, na yebal ñam war a yebal ñu dem loqati ci xaalis bi indil ñu ko dañoo mbënd maa ngi nii Touba danga koo soxla bu dee da doon sos nag ma taxaw nañu yee eh, man dama doon sos damaa bëgg jot ci nguur gi rek bu ko defee ku ne xam boppam ñoo xam ne ay sos a ñuy jiite wax ji dafa war a leer man xoolal samay question laa yor damay laaj <laughs> pool financier bi daal laajal leen ma kenn kenn ba xam dañoo bokk ci projet bi wala mm. bokkuñu ci projet bi ndax ngañ dem ba turee ku bokkul ci projet bi doo nekk ci xolu réew mi te xolu état bi mënoo ca génne magistrat yi alors alors laaj la euh, di bu leen ko foyé question la laaj len ko fu nu bokk ku ne dañoo war xam fi nga fan la. alors c'est clair voilà. mi non donc par rapport ak magistrat yi item des nouvelles nominations de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et les interrogations yi nga xam ni Abdou Nguer mu ko ci di poser à sens par rapport ak euh, récente déclaration yi nga xam tam Ousmane Sonko defoon na autour bobu de li nga xam nek modi justement koppar ay genn be dugalante bi alors euh, Abdou.